الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لا إله إلا هو لسان سكري من بعد سكري بحير مكري لذي الألاء لسان شكري من بعد سكري بحير مكري لذي الألاء إلى سلامي أفدي كلامي بلا ملامي ولا خلائي li ufdi lisaani li man liman kasaani saw bantilaayi woote bu am solo boo xamante ni moom dañuy wooteel suñu maam Amadou Makhouredia Diop mi nga xam ne kenn la ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba ñu koy woote fii ci Kellel war ko amal ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre wii ñu nekk ñu ngi ciy woo ñëpp di ko dalee ci ndigal li nga xam ne moom lañ jëlee ci Cheikh Mamadou Mountakha ginnaaw bi nga xam ne ndigal li bàyyikoo na ci moom ak ci sëriñ ahmadu Mokhtar xalifa Darou Khoudoss ak sëriñ Abdourahman mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Cheikh Gaynde Fatma ak mbooleem njabootuk euh, waa Darou Khoudoss ak mbooleem njabootuk sëriñ Touba su dee nag solos woote bi ñu xam ne woote moom buñ koy def dana am lu tax ñuy woote Amadou ja kenn la woon ci mag ñi àndoon ak sëriñ bi liggéeyal ko ba làq ngërëmam ba am ay may yu bëree bëri yoo xam te ni mu ngi bàyyi ko ci ànd gi mu àndoon ak sëriñ Touba bi nag leen rek la mooy dañuy woote ngir ñaanal ko bu ñu waxee ab woote ci ji jamono ku ci nekk dana gëstu lan ba waaye woote ba nag weesuwul ndam loo xamante ak càkku téef la goo xamante ni kenn ci suñuy maam nañu ko am ko ci diggam ak Serigne Touba mu di Ahmadou ma Xureja ñu gën koo xam ci Ahmadou euh, ndam loolee nga hamna ne na ko mu sàkkoo ko comme ni ko ñëpp ba sama borom may ko ko ci keppaaruk Serigne Touba ba loolu sax moo waral ñu di Kelleel Diop mu ñëwoon fi ci ndigalul sëriñ bi kon fi la ñu koy wooteelee tey woote bi nag ci tënk rek dañ koy dalee li ko dalee ci kër sëriñ Mamorum Soxna Jaara ak ba ci Seex Masamba ndax ku nekk xam na ne li ñuy woote lañu ca gën a ñor mooy diggante Amadou ak sëriñ Touba kon mënuñoo jiital keneen ci woote bi ku dul njabootuk sëriñ Touba ak boppam googee di ko dalee ci Seex Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne ku nekk xam ne digganteem ak waa kër Ahmadou eh, ba ba ci Seex Mouhamadul Mourtada mi caatum sëriñ Touba di ko woowe ba tey ci li ko dalee ci soxna Fatou Dia mii tawub Serigne Touba ba ak ci ci soxna May ni ko noonu it njaboot gi nga xamante ni ñoo bokk ak Ahmadou ci wàllum meen ak ñi bokk ak moom it ci wàllum gaño kon loolu bàyyiwuñ ca kenn muy mbokk ñi mu bokkal saa xewar soxna May ñëpp ak saa xewar Fatma bàyyiwuñu kenn eh, di woo ci biir njabootu boppam gi nga xamante ni ñoo bokk liggéey bi ñu leen di woo li ko dalee ci taaw ba di Serigne Mor wàccit ba agsi ci sëriñ seex soxna ak sëriñ seex anta ñi nga xamante ni ñoo di caadi ci turu Kelel Diop gépp te Baye Thierno nekk ca bopp ba di koy yëkkati seen tur ñoom ñooñu ngir ne bis bi fii lañ koy amale te ñoom ñooy dalal gan ñi ak mbokki dëkkandoo yi yi nga xam ne lañ dëkkal ngir ñu woo leen soññ leen i soññi ak a woo suñ mbokk yi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu bokk fii ci dëkk bi te féete fële ca Touba xam ne fii lañ dëkk waaye ña nga fa Touba waaye terewul fii lañ dëkk li jàll yëpp ñu daan ko ànd ak ñoom ba tey bi bis bi ñëw itam ñoo ñu ngi leen di gën a soññ ci xam ne bis bi ñoom seen bis la ñu nag ñoo ko bokk li ñu ci war rek moo leen ci war ñu leen soñ bu baax a baax ci teewaay bi ak jàpp ci nañ ci daan jàpp ci yéen yi nga xam ne ñoo jiitu woon muy suñ mbokk yi nga xam ne fii lañ cosaanoo wala fii lañ dëkkoon yàlla dogal ñu dem tubaa féete ñu foofu ñu féete leen fii ñu ngi leen ci soñ bu baax a baax a baax xam ne itam bis bi euh, dafa am leneen loo xam ne itam bokk na ci te muy lu am solo mooy incha allah suñu àggee ca bis ba bu ñu sëlmalee tisbaar dañoo fas yéene teg xeeru juma fii ci dëkk bi ngir gis na dëkk bi yeyoo na ko te itam jaaru na fi yàlla na fi te loolu itam ginnaaw bu ñu ci amee ndigalu suñ muntaxaa mi nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba incha allah fas yéene nañoo teg xeer wi ci bisu màggal googu. xanaa di woote bisu Amadou Mahmoud bii rek nga xam ne bis bii rek lañu am di ko wooteel gànkal Amadou Mahmoud mboolem képp ku sëtu ci Saxewar Fatma ñu ngi la ciy woo ba ci ku sëtu ci Amadou ba ci sëtaat yi bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu góor bàyyiwuñu jigéen ñi ngi koy tàmbalee ci maam ci baluga ba ci maam Mbaye mi nga xam ne moo fi nekk yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàgg fi loolu te wér ñu ngi woo ñëpp nag bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo ku dëkk tund woo mën a bokk rek te sëtu ci saaxar Fatma ñu ngi lay woo suñu bis bi. sama mbokki soxna yi Kell laay wax ci laay tàmbalee nañu fas yéene góorgóorlu ci bis bi jàpp ci bis bi bis bi sunu bis la nañu wàcc lal yi génn kër yi génn néeg yi dalal gan ñi xam na sunu bis la bis bi rek lañ doon xaar bis bu nu mas a am bis bi moo gën a màgg ci sunu bis gannaaw sëriñ Touba kon ñi ngi ñaan yàlla ak yonent bi Serigne Touba. yàlla na nu yàlla yeggale ci bis bi te nu fekke ko te tal ko am mboolem jullit ñi ngi ciy woo ñëpp nag na ngeen génn yéen jigéen ñi Kelel ngeen bale kër gi bale ëtt bi bale pénc yi dalal gan ñi bu fi kenn xiif bu fi kenn mar na lépp di sunu bis ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla yu neen tubeeg Serigne Touba yàlla na fi yàlla yàggal maam Thierno Diop te wér yàggal fi mboolem jullit. Eh, xam nañ ne. ñi ko ko wotel xamna ni ki ñi wotel lu lu mag la ku reey la wante bis bi tolo nak moom ko la ñi ci soññi ñep di gëreem ñep di ñaan ñu ag ci ak jamm ci suñu borom defal ñu ci ay xéewal defal ñu ci nimbal taw feexal ñu ba ndax geneen taw feex sax ndax taw feexu bokk ci amul rek taw feex deug la kon nak alhamdullilah nañ sant bu baaxa baaxa baax defal ko ko lu deglo mag ñala lu lu lu lu ñu mën a dimbali la zahiran wa baatinan kon laa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa eh, ngeen jëf kon woote bi mi ngi noonu ñoo ko déggandoo muy woote bi xam dañ koy woote ci turu euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy alxalifa al am li taifa al programme bi nga xam ne nag mooy war am ci bis bi comme niñ ko baaxoo xamee rek jataay la boo xamante ni dañ ko jagleel ñaan te ñaan la ci jiitu mooy jàng alquranul karim kon bu ñu xëyee danañ ko xëyee njàngum alquranul karim ak jàng xasiday sëriñ Tuubaa yi ak tudd yàlla xeeti tudd yàlla yëpp lu waay man rek moo xam muy julli ci yonte bi alayhi salaatu salaam moo xam muy istighfar moo xam tamit geneen xeetu julli yàlla geneen xeetu tudd yàlla gu nit man dana jëm ci Amadou Mukhreja ñu tànnoon thème boo xamante ni mooy Amadou Mukhreja al muridu sadiq muy murid bu dëgg wax li nga xam ne noonu la àndee woon ak sëriñ Tuubaa wax tamit ni nga xamé non la deggo won ci ak talibem dañ ci fas and ak Serigne Ahmadou ngir an doon ku ñu xam allah bu lolu jàllee buñ démé ba waxtaan wo jall ak kaddu yi nga xamné mom la kilifa yi wara jël danañ ko gungé tamit am jangum khasida ba ca guddi su ko défé kon ñi ngi ci wo ñep di xamlé tamit né bis bi nga xamné mom lañuy def fi ci kellel ñi ngi ko dara al khalifa al am di Cheikh Mamadul Montaxa di ñaan yalla borom bi subhanahu wa taala gën ko yagal gën koo dëgëral ba liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal Serigne Touba ma amee ci lu kawe njortam dañu ànd ko ak moom di leen sant bu baax di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala ñu teewe ko ak jàmm